nuyu Marie-Jeanne ah moom la wala. waaw waaw man nga fekk. waaw ah, maa ngi lay ziar bu baax di ziar gis di ko ñaanal suñu borom yi la merci merci parce que ndamam li sunu ndam la ñun ñëpp bokk ci ci ci abonné ci. ndeysaan ndeysaan ndax man euh, ay ay affaire yii nii ay live ak yooy yàlla xam na ni damay rom comme yii nii dagg ak yooyu laa doon déglu mais c'est la première fois mooy dugg ci ay live ak affaire bi demee intéressé nii. parce que du n'importe porte nit laay déglu parce que bu ma dee déglu damay déglu koo xam ne au moins li muy wax ci xam-xam la koy teg mais pas ay sàggkat yoo xam ne dañuy wax lu leen neex li ñuy wax ay vie rek moo leen si dugal. ndeysaan di gërëm it sunu naatax yaakaar naa naatale miinaguma ñëpp ci question yu pertinente yi mu doon posé keroog parce que am ñuy kii naa ko da ngaa bari wax fekk. amna sama kalas go xam ne man ma nek ci souf amna mo ko ko wax ko ko wax nata na la bloquer wala mo pousse commentaire yi modératrice la na la dégager ca xaj yow parisien il faut na am audace parisienne yaa ngi may dégg parisienne jox naa la lenge yi del am audace del osé jëlal sa responsabilité su ma génnee bu ma laaj kii maax ma bloqué dégagé ca xaj yenn indiscipliné yi mm. il faut nga am audace quoi. maa ngi laaj résumé maa ngi ñëw résumé leen xaar leen ba ci kanam tàppate leen ñu yegg ci ñoom. exactement léegi daal vraiment di kontaan bu baax a baax a baax Ziz daal yal na la yàlla fay yal la yàlla dëgëral bu baax a baax ci zaahir ak ci baatin ak ñi nekk ci panel bi yëpp ay nata ak parisien ak ñoom ñëpp yàlla dëgëral leen bu baax. amiin ah, nda yëri mu dugg sànq tamit encore maa ngi koy conseil na muñ bu baax te xam ni. Euh, tuuma du dara parce que saa yu la tuumaalee mu metti la tuumaal na la ku ku la gën ko dara comme que moom turam duggoon na yàlla seetal ko ci nu jàpp keneen kun tuumaaloon te moom kenn jàpp ko rek na xam ne kon am naa yaakaar ne du ci dara kon na sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax waaw maa ngi gërëm ñëpp maa ngi wàcc maa ngi guddal daal jërëjëf euh, Ziz di daal maa ngi nuyu ñëpp. Ah, naa si yéen kontaan naa ndeysaan yéen a baax. Hmm, yéen a baax papa ñëwal ci kaw. Pape Ousmane. ñoo ngi lay ziar. xam naa dafa am problème mu micro xaaral may ko tuuti. Afibak jëlal Afibak. Ah, maa ngi leen di mhm. leen ziar. ñu ngi lay nuyu. Euh, je sax laa bëggoon jot tey rek parce que fii ma toog nii yàlla moo ma tiim mais sama xol bi dafa sedd ba dama ragal def crise cardiaque dama kontaan dama bëgg ah. te dama fier ci lii parce lii ndamam la li mu wax noonu effectivement ñu bari ñu mi doon xaar défaite mm-hmm. mais yàlla bari na sutura te yàlla ku ànd dëgg la àndal mm-hmm. li mu def amu ci dërëm fay ñu ko ci dara da ko def rek te yàlla tax mais bégal na sénégalais yi mhm. man je ne trouve même pas moom mais sama xol dafa sedd barki alxuraanu karim ba dama ragal crise si sama biir kër déet waay wallahi dama dama dama sama dafa mel ni xeer moo taxawoon sama dënn bi depuis décès bi mhm. xawma leen ñoom ñëpp musuma leen xam ci télé bi rek laa leen di gisee ni dafa nekkoon ah, loo xam ne mhm. ni ma def man xaw ma ndax def na ko beneen nit mais man dem naa ba sama jëkkër daf ma ne est-ce que yow sama ma ne ko lii fi ma du yóbbu dara musuma fi yóbbu si àdduna dama koy ñaanal mhm. dama koy ñaanal di leen ñaanal yéen ñëpp yal leen yàlla defal jàmm yàlla fay leen franchement dama dama bëgg daal dama bëgg yal na yàlla mottali yéenem ak yéene sénégalais yépp di ko ne ci kaw ci kanam rek incha allah jàmm lay am parce que lii dafa metti dafa metti munu munu kenn munu ko expliquer avant woo naa ko appel normal sax bu mu génnee ci live bi mais jotuma ko li nekk sama xol bi yëpp mënu ma ko génne mais ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wër di ko ñaanal ñépp ñu nekk ci live bi amiin waay amiin nous sommes fiers de lui. di leen ziyaar yéen ñëpp nag la parisienne nata ku lim da ngay juum daal. Mm-hmm. franchement. merci kontaan naa ci yéen wax yi tegu na ci temps. Mm-hmm. vraiment yëpp normal ça va. amul ah, ah, mënuma wax quoi comprendre leen ma dama nekk. <laughs> merci beaucoup rafetlu nañ ko. maa ngi wàcc di déglu si suuf. d'accord merci. Pendista ziyaar naa la Pendista. maa ngi delloo ziar. naka mu ça waa li fi li fi xaw ma ndax yaa ngi woon ci live bi yëg nga ni Aïcha jàpp nañ ko ak beneen jigéen. Ah dafa amaale keneen kuñ jàppale ñoom ñaar fi waxoon yëpp xoolal am na ba leneen tegu si. liñ doon xaar démb yëpp am na tey. alhamdulilah billaay taxawoon ñëpp ñu ngi ñu ngi doon xaar ñu ngi doon xaar de yàq suñu kii bi réputation billaay yàq suñu réputation te bas wax na waxul dëgg xam nga au fond doo comprendre dëgg la bas bas yéeg na léegi mais xol bi dafa fees tellement yàggu fi yow bas tey ni mu waxee dangay dangay kii sax dangay triste sax yéeg na léegi mais wàccaat na dañ ko libéré dañ ko bàyyi mu dem parce que bas moom tey il se sent waa gars yi yi dafa mel ni am na demande bu ma fi gis moo bëgg turam ndeysaan xoolal ma dadaa bi fecci dafa mel ni demande am laa gis de xaw ma moom la xaw ma du moom dadaa bi ma doon tudd léegi bokkul ak bu HLM bi daa mel ni demande laa laa fi gis xoolal ma dadaa si si si liste bi. Ah? dadaa non non kii def kii yaa dadaa bi feccal Assane Ndiaye bi lëmbal xoolal ma ko daa mel ni moom laa fi seen ndeysaan tey dama am ay gan gan gan fecc international dadaa daa mel ni gis naa ko de léegi léegi daa mel ni gis naa ko fi dadaa gis naa ko de dadaa bu tëngeej kiyaa ah? la def am mbaalal ma ko dafa mel ni mi ngi fi def na demande léegi mbaal ko dadaa bu tëngéej la mbaal ko mu yéeg ndeysaan yaakaar naa moom la de bu ma juumul de mooy ki ma doom tudd léegi foog naa moom la seetal ma ko gars yi xaar leen tuuti. non nekkul kii bi nekkul na defaat demande wala ma xool ko ci kii bi. dadaa bu fekkee yow la defal demande dadaa bu fekkee yow la daa mel ni gis naa koo de dadaa du ma ko jaawale de. Mana demande yi kii la def quoi suma djumul mom la. non nekul demandé xaar xaar kon ne len antana peut-être du mom mais mom la ko tégan mom la ko tégan ok bon Pendistar en résumé c'était ça donc Bass na mais on oh, était tellement aimé mom tamit il se sent pas bien bay nañ ko bay nañ ko mu wacc dem voilà donc euh, bëgg Serigne Fallou Xaadim Touba Xaadim ah. ubbi sa micro asalaamaaleykum ah, maaleykum salaam ñu leen di siyaare bu di leen jox seen wàccukaay ñu ngi di ziare di ziare Basiru mi génn moom it ñu ngi koy ziare ñëpp rek ñu leen ziare bàyyiwuma kenn ñëpp rek. di di rafetlu liggéey bi ngeen liggéey. macha waa gaa may signalé waa may ma tuuti sëñ bi sant yàlla rek gaa yaa ngi may signalé live yeeg waa presse bi yëpp jël nañ photo Aïcha bi teg sama live bi en direct photo Aïcha bi ñoom ñëpp kenn amu ko woon mais may gërëm nag. Wadai, wadai may గరమా ma, foto బి <laughs> <laughs> nah, <laughs> nah, si గన్ కో జలే దేరన్ మై గరమా non deug la de gaay tapate len ñu dem 1 million sénégalais Wa, sëñ xaadim ñu lay dégg Wa, Basir mo la lu waay lu ci waay am lu leer rek ci moom ci moom lañ ko jëlee de mom. loolu mom lu wér la ndax depuis ba affaire bi ba ngi topu. Magal ga ba ngi topu. damay war a tëdd sax du ma mën a tëdd mhm. ndax topp affaire bas rek ah. waaw donc ba léegi maa ngi ko topp waaye yàlla mi am fay daal yàlla leen fay rek te taxaw leen te sàmm leen amiin jàpp leen ne adduna bi yëpp ngeen ko defal defalu leen ko senegal kese de adduna bi yëpp ngeen ko defal ndax ab Sénégalais nekk rek eh, sigil ngeen ko daal ah. waaw waaw ñu ngi leen di ñu ngi koy rafetlu bu baax baax baax bas nag sama. waaw yéen da ngeen am problème mu réseau kan moo am problème mu réseau ci yéen. non non ñun amuñu problème ñu ngi lay déglu baale. waaw man ak Basiru tamit ziare leen ma ko bu baax sama xarit la damay dégganteeg moom moom it wax laa xam ci moom. dafa dëggu dafa dëggu. waaw dëggu dëggu laa xam ci moom looloo tax ma xaritoog moom moom it waaw moom maa ngi koy seede ci moom dëggu daal laa xam ci moom. dëgg la waaye Ziz tamit moom Ziz maa ngi sàkku sa numéro yow sa numéro maa koy sàkku Ziz. ñëpp yor nañ ko jox ko bi numéro bi laaxatuwul ñëpp yor nañ ko jox ko numéro bi kii. kon nag baax na jaajëf maa leen bàyyi ngeen whatsapp la whatsapp dégg nga 77 520 0 whatsapp la whatsapp. baax na jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf jaajëf. Ami Faye ñëwal Ami Faye. Salaam alaikum. La périsée. asalaamaaleykum. fay ami jël s'il te plaît. waaw ñoo ngi lay fay. ami da am problème mu réseau de dafa mel ni. xawa jëlal xawa jëlal. la périsée de. maa ngi lay ziar xawa ça naka liggéey bi yaa ngi si kaw. waa ñu kawam sant yàlla. Eh, alhamdulilah yàlla jàmm yaa ko zi naka liggéey bi. tey moom bi dañoo kontaan. dañoo kontaan dañoo am fierté laa la wax zi jërëjëf. yàlla moo fay yàlla ma aar la sàmm la. Eh, gis nga taxawaay rafet na macha allah depuis affaire bi rëy bi commencé te doo defoo dara yaa ngi si góorgóor rek di indi ay nouvelle yu baax ay nouvelles yu wóor du nouvelle wax na fii wax na fële ay nouvelle wóor ngay ngay génne kontaan na trop. merci beaucoup kontaan merci beaucoup. merci maa ngi bay dama sonn. waaw Fatou Voilà, merci. beaucoup. À demain, Inch'Allah. À demain, ouais. Khadija, ñëwal. Allô, salam Maaleykum salaam. ñu naa leen gis. la Khadija. ñoo ngi delloo ziar wér. Mhm. franchement man depuis affaire bi am ba léegi. Mhm. man mosuma dugg ci live c'est la première fois. aywa yàlla xam na ko. mais saa yu mu rombee live juge rek damay dugg parce que information yu baari fii laa ko doon amee ah. parce que man même yéen ñi ñuy mujjee yéegal boo leen yéegee da ngeen di fay seen micro allo ñi ñu mujjee yéegal fay leen seen micro Khadija vas-y ma ne même man démb xaw mbarki démb ci laa dégg ne am na beneen xale bu jigéen bu ñu arrêté fii laa ko déggee. mais démb xam nga toute la journée connecté wu ma parce que suñ courant bi foog naa sax Dakar yëpp la. ma ba ngoon maa bi noonu man damay dugg rek di di chercher live vous pour xam affaire yi fan la toll. mais di déglu à la fin lu ma ci mos a xam fii laa koy déggee. parce que fii lay dégg information boo xam ne kii na ma convaincre na ma daal ma xam ne lii war na mën a nekk ou pas mhm. parce que ku nekk ak sa version ku nekk yaa ngi doon indi say say say kii directeur di wax mais ku nekk ak la ngay andi mais li may dégg fii moo franchement mooy loolu ay idées yoo xamante ne da ngay xam ne lii c'est logique man dama xamul affaire léegi fan la tool parce que man temps yi moom mooy loolu affaire bi daf may rëcc parce que xëy moo tax waaw fi mu toll mooy Aïcha mujj nañ ko jëli dugg na Sénégal. dama xamul Aïcha boobu moom ci affaire bi la bokk wala complice wala la la. nee ko juumuma gars yi may leen ma tuuti dama am gan ndeysaan dadaa la juumuma moo doon demandé. jamono yële ñëw na fi ñu gëjoon gise ay ati at nag ba Sénégal di neex ñu ànd fu ne mooy kiyaa bi ay sept ans si ginnaaw lañ gëj a gise xaw ma dix ans war na ma dix ans dernière soirée Assane Ndiaye Gambie biir Kama kooku mooy Dada kii laay wax sànq par hasard ne kii mooy lëmbalkat kii mooy fecckat bëgg ma ba mu jeex tàkk man jamono yooyu tam ndeysaan mu nekk sama nit Dada ma bàyyi la nga présenté wu xaw ma dafa tombe nga nekk si live bi mooy kiyaa bi kii mooy Dada Dada ma bàyyi nga nuyoo. biir sa micro bi dada jaar na leen waaye jaar na ziar kenn mënu la yégal si live kii mooy eh, eh. dada bu HLM non dada bu tëngëj doon feccal <laughs> Assane Ndiaye tey mooy premier live tey mënu yéeg si live ndeysaan ndeysaan da nga baax sama xarit am appel juste ñi fi nekk nuyu ñu ngi si fay di am mais ça va quoi sant yàlla yaa ngi comprendre parce que am li nga xam ne bu amee rek même su nekkee nekkatoo ci sax si nga nekkoon sax dalay laal maa ngi garde woon sax benn foto nag bugguma ko woon teg mais faye ma teg ko <laughs> non yow sama nit nga juge yow hmm. yow gars xam nga la yow moo la déggee sax ngay tàngal dama tiit dama ne kii est-ce que la non non du Ziz sorry sorry sorry sorry ndeysaan ndeysaan non ñetti tur yëpp nga yor yow yor nga Dame Mbodj yor nga Ibou yor nga Ibou ma yow ñetti yëpp nga yor waaw ndeysaan yow yow yow bi di xamante xale nga mais dañu yar bu bëri di ñoo wax ak keneen ak keneen jarul tudd ñu nekk même groupe bi voilà nekk si jàmm soo jiyee nga nekk xale yaa ngi am vingt ans yaa ngi am dix huit ans dix neuf ans vingt ans boo ñëwee indi sa oto oto jamono yooyu ndeysaan yàgg na voilà nga yóbbu ñu xam nga mhm. jël sa xaalis di ko def si dund nga nekk nit bu baax nga xam ne oh, bi baaxul caap pop pop pop pop wax lu am solo réseau bi baaxul ah kon est-ce que du ci la ci yow la de dafa mel ni ñu ngi dégg ci man la ñëwul Oke, ok ma ñëwa voilà waaw ci sa ibu sa waay la quoi surtout des fois damay gars ibu nii juge nii juge nii mais man dama trop trop trop mais moom aussi daf ma xam daf ibu nii lu mu hmm? yes xoolal belum si rek okay, lor loolu am xale la mais daf ñu yar parce que dafa yàgg jël alalam di ko def si ñun comprendre nga baax dama doon ñëw war a dem jouer ji Assane Ndiaye wala ma war a jouer ji Titi damay tardé mais day taal otoom fu ma nekk daf may yóbbu juste nag pour frère ak sœur wallaay nagim pour frère ak sœur juste lu mu gisoon ci man moo tax fulla bi ak fayda bi parce que man dama mhm. dugg ci aar mais yàgguma ci man cinq ans laa def six ans après effacé wu dem mhm. nekk ci sama tey xam nga nekk ci leneen quoi mhm. voilà pourtant damay nekk Sénégal de temps en temps mais ñu bari sa duñu ma gis parce que man voilà bëgg naa daal nit nekk si jàmm man ma nekk si jàmm c'est ça mais li xew nii dafa métti métti métti métti métti ba si biir xol yàlla na suñu borom def jàmm toolu sutura yi mais juste encore une fois. waaw merci merci beaucoup parce que des fois. problème du am rek mu jël benn affaire di ko teg nit ki à chaque fois li ngay wax dara leeru la ci. xam nga mm. toujours yaa ngi joxe information yoo xam ne juste que. du mm-hmm. question ko da nga koy def sax xam nga pour vanter wu. mais vrai lay doon juste et vrai mm. comprends nga mm-hmm. mais mm-hmm. nag aussi sama sama sister dafa ma dafa ma dafa ma touché touché na ma Aziz nekk suñu frère dafa metti mais yal na suñu borom dolli sutura loolu kese laa mën a wax ci cas boobu yal na suñu borom dolli sutura te aussi ñuy dool dellu si si yàlla te xam ne aussi yàgg mais am yàggul des juges xam nga loolu juge ut moo yàgg mais am yàggul fi quel que soit alpha rek demal ak sa dignité ak lepp lu mu ci doon parce que aduna amul solo da fay jeex ta des fois ñun ñi nekk ci milieu soobu mhm. ma am li li ma ko jënd fi la dëkk da fay jaral des fois nga def lo warul def wala nga wax lo warul wax ta jaru ko wa Dada Tutus bi ci souf dafa mel ni da nga bok ak mom département de am Amérique dafa melni da dala xam de tutu dego hmm. mu naan xanaa oh, iya? américain nga dal dal dal dal xam de tutu mi ci souf sama sama modératrice la mi si Amérique la nekk Amérique la tutu ziar na la ziar na la way ba lépp jamm mang lay ziar bu ba anu, baax encore une fois man du ma affaire lu yag man dal juste li may fi moy juste xam nga dama yag defal lu bax te bu ñëpp dang koy wara a wax. waaw kay yow gaay lay jugé xamuñu la wallahi azim nit ku baax nga nii Ibou mi nit ku baax. ma lu nek la ma defal sérieusement pardon lu nek defal na ma ko. déposé na ma fu nek même dañuy tok suñu auto la wax suñu auto bu ñewul ibu lu même bu nekkon 3 heures de temps la wara a dem jouer daf may déposer ñibi wat ndaysan may ma am lu ma leeral fofu tuuti. gaay moy moy li ma leen di wax ki sekkuñu dara fi mu leen ko waxee dañu mel ni ñoo bokkoon ndey ak baay dafa mel ni ay ay seex nañ woon li may wax nii war na def ay treize ans si ginnaaw la ma leen wax xam nga yàgg na douze ans kii ak géej réer na showbiz bi daanaka ñoo tukkee ndoo presque mi ngi ba Amérique nii mais daf ma bëgg rek te yàlla tax ma nit ma bëgg ko maanaam ay xarit nañ dañoo ànd fu ne ba may tërëréer yi ba may të moom xam na moo tax su ma leen kii kii ngeen di teg fecckat du fecc kat daal li ma leen moom feccal ma moo yombul ba may tërërëri laa wax tërërëri tuma talatuma dara kii sama guddi yëpp la fekkee dama daan dugg si ne darat Assane Ndiaye di ma woy ba woy bi di jeex may tërërëri di voyage di dem fekkee na lépp moom boobu merci classe A mi ngi nekk haute. waaye wax nga tànn danaa boo dugal fii yow lay wax ni. <laughs> gaa yi da nga bëgg gaa yi dem soirée <laughs> soirée Assane Ndiaye naan kan mooy si. mais ñu ne fereeru dara bi fan lay jëlee oto yi soo indee oto bi après demee da nga koy changé quoi indi beneen oto. waaw boobu boobu boobu danaa boobu maa ngi tërërëri yow xam nga xam nga lu ne lépp ndeysaan ñu ànd fu ne. nga doom ñëw suñu kër ndeysaan gis famille bi yow daal danga baax daal ma dem ba benn instant boo naree jël taxi sax am na bu Assane Ndiaye doom joué sali xaw ma coon sekk boobu sama tànk bi mi ngi mhm. metti ma la doom éviter nga dugg taxi ma ne suñu chauffeuru kër bi mën na ma la yóbbul boobu Mercedes classe moo nekkoon au top wax naa ko keroog da baax yàlla rek moo ñu boole man man da nga ñëw di ma waxal lu baax man tam ma lay waxal lu baax maag yow du intérêt dañoo ànd fu ne fu ne ay génération nañ xam naa yow it jeune nga. fu dañ ko ànd fu ne. waaw yow. Hmm. voilà hmm. damay ñaanal Aziz yal na ko yàlla yërëm moom ak Waly hmm. xaaral leen àjjana. na ko aussi ñu koy ñaanal suñu borom gën ko dolli sutura. xam nga. bañ a métti affaire yi. delloo ay njabootam sérieusement xam nga. cet du wees ya, hmm. daal to aussi tam ku nek tire ci leçon ta xamni aduna amul solo do defé nank rek yalla mën na la jappalé ci mo di nga toog hmm. nga sant yalla quoi ye aduna amul solo merci ya nak suñu borom suturaal ya na leen ni day naa leen ñëpp may jéego mais yow gaay xana dañu xamul ne da ngaa bàyyi fecc kon lay laaj yow dada xana xana gaay xamul ne da nga bàyyi fi ki bayina fecc bu yag arrêté na bu yag day feccantu ni rek ok parisienne léegi doxalal ñu continuer parisienne doxalal ku ci topp na wax. Khadija ñëwal waa. Khadija mhm. sànq de. moo nga dëgg. baal dara. gan la dañ koy dalal parce que man chaque jour live merci rafet lu may wax rek comme euh, temps yi ni ma ni ma ni ma déconnecté totalement xaw ma affaire yi toll et ma déggoon temps yi passé affaire yooyu par la suite dama déggaat ñu ne du dëgg xaw ma sax man parce que man temps yi moom gëj naa nekk ci kii bi ci WhatsApp si si TikTok beeg yooyu noonu parce damay xëy. dama du dëgg. dama déggoon ñu ne dañoo libéré Nabou. ñii xadi jaagit ngi ci live bi nabu libéré wuñ ko. après dama dégg au contraire dañu demoon. mais parisienne yaa ngi may dégg. oui ma parisienne yaa ngi may dégg. Mhm. daf na la dafa déggone nañu dañ ko libéré. ma mhm. waxat la dara fi mhm. xam nga gis ngeen euh, gis ngeen Aïcha. wa ngeen togué touti tamit ñun libéré Nabou lay bu mu len bett dégg ah. Hmm. xam nga tombe na muy wax man ma lay wax téere ngeen toogee tuuti ñu libéré Nabou Leye buum leen bett dégg nga Aïcha ñëw naa maa la dóor code boobu waaw baax na Aziz <laughs> daal moom Aziz <laughs> na dama ko bëgg mooy loolu te wax rek après da gis après suite bi daal mhm. mooy loolu Zou moom sa live bi ñëpp ngi koo toppandoor ah gars yi ñu koy copier. ñu ngi ko copier ñoom am jël nañ fa photo bi xaat ñëpp mais doo fi ku doful xam nga ne photo bi fii la jógee. ñëpp ko tey ñoom ambassadeur yëpp sa live bi la ñu wax ma ne ma ne foog dellu si yëgal la lii li nga wax si live bi fii ni ñu fi waxtaan ñëpp la ko ambassadeur moom la moo nettali comme comme ni ñu ko doon waxe ah! <laughs> ñoom ñii duñ nit waaye. Ah, graaw nañu ko root rek mais nañu wax si juge lañ nañ nampé non non mi ne moom moo xam di wax di man dama tiit moo ma daw génn ma ne xaaral ma ñëw <laughs> foofu la de bu ñuy day mel ni ñoom fi da nga ne waaw information bi ak ak ak waaw rafet yow di wax di wax beneen waaw ba ci sera sax takana dobo sam na bi eh yow yow wa fili di waxtaan léegi yëpp da ko yëpp yëpp yëpp Ah. ñoom noonu la live bu ñuy live day mel ni xola day mel ni ñoom ñoo koy nettali ñoo ko fekkee ñoom ñoo yore preuve yi. loolu ma jaaxal. mu yow même phrase yi la ñuy wax même mot lépp li ko ni ko juge waxee lañ koy waxee teg teg. Ah. ok merci kun Kunta Kinte. Khadija yeggalil après ma kii euh, ah ñëw na. après soxna Fa Khadija yeggalil après ñeneen ñu gën ma yeggalil si des. Khadija waaw allo waaw yeggalil non man kay léegi dama bëgg a toog rek pour suivre kii bi ba ci kanam ma xool parce que man tamit temps yi moom affaire daf ma rëcc totalement mooy loolu waa d'accord euh, Mariata ñëwal aywa euh, la parisienne nuyu naa la <laughs> ziar la Matou ah yow la Parisienne yow daal defal naa la chapeau vraiment chapeau yi ma defaloon ah, juge yëpp nangu naa ko joxaat naa la ko. bon tey moom nata moo bi ndax li mu mën képp xam naa ne nata moom. nata moom xam naa ne moom. non tànk lay moom bopp lay doxee yow yaa ngi doxe loxo instant mm. mais mais sant yàlla nee nañ alhamdulilah rabbil alamin li ñu bëggoon yëpp am nañ ko. Mm-hmm. xam nga dañuy wax ah, ñi fiy rootee nañu root waaye nañ ko nañ ko rootee nu mu rafetee rek na répété bi ñuy répété fii nañ ko répété la même chose ñu bañ a wàññi bañ yokk comme ni ma waxoon sànq suñu waxee turu juge la bu ñu waxoon turu juge la képp ku fa dem ku fa dem di xool seen laay fi ñëw fii di xool xam na ne wax yi bu dee waroo rek dinañ xam ne ñu yokk nañ wala wàññi nañ mais dinañu xam ne fii lañu rorsee kër Ziz bi donc li mu waxoon démb ak bëkki démb yëpp am na amuñu gàcce bis ba ne ñoo ngi am fiyaat man dama kontaan ba dama mujj feebar sànq ba tey dama tëddoon mënuma mënuma dara dama déglu euh, lu ñu wax mention spéciale à vous dañ koy delloo lépp lépp bas ndax parce que mënoon na dem ci yeneen live di ko fa wax mais dafa tànn fii ñëw fii ci kër gi lu lu xew umpul fameem mooy ñun ñi nga xamante ne ñooy entourage bi nga xamante ne mooy juge donc dañu ñaan yàlla rek yal nañ ko eggali ak jàmm mu leer ak jàmm ñu bañ a am benn regretté ci li ñuy def ndax euh, ndamu juge mooy suñu ndam ñun suñu ndam mooy ndamu juge damay wax rek encore une fois man li ma jaaxal mooy que Aïcha ñëw na jàpp nañu beneen gel ah la parisienne yu ko dina jub fuñ ko feegeewul de loolu laa ragal te xam naa ay mi photo bii depuis démb juge mu ngi naan dina ko posté te tey ba mu ko posté gis naa ne xaaj bi la génne woon ndax bëgg koo génne ba mu leer te amagul lu ko leeragul donc loolu lu ku bëgg lu nikel la lu set lay def nañ ko ñaanal encore une fois ñu koy ñaanal sax ku yéeg ci live bi yaa ngi koy ñaanal ku yëgul ci laay bi yaa ngi koy ñaanal di ñaanal njabootam gi nekk fi surtout ma yow ak nata ak ñeneen ñi nga ne ñoom ay at mi lañu ci biir. mooy ñoom tutoo ñoom ñii ne ci suuf di gérer affaire yi. <laughs> wallaahi ñoom ñëpp ñoom ñëpp ak ñun ñi nga xamante ne ci déglu lañu féete man je animatrice mais man li ngeen mun ak li ngeen di def ni yàlla xam ne ne mënu ma ko ndax su ma fi nekkoon ba léegi maa ngi ëbbali maa ngi sonn dinaa toog ba mu yàgg ma off donc yéen boobu léegi yéen a ngi ci kenn jëndul leen crédit am ngeen yeneen temps yi ngeen am am ngeen yeneen bagage yi ngeen war a dox rey ngeen seen temps yëpp ci Aziz Dabala ak Wally yal na leen yàlla may ndam may ñu ndam ñun yëpp damay naan chapeau encore une fois ak yéen maa ngi leen di bàyyi xel maa leen di déglu kite wu ma mais maa ngi leen di déglu instant yi dama feebar ba liw dama kontaan ba feebar ba liw bi lay wallaay maa ngi leen di déglu merci beaucoup Mawla merci beaucoup soxna Fall ñëwal après Ami Fall après sëñ Babacar salaamaaleykum waa panel bi waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp sama moromu jigéen ñi ma fekk ci suuf ci kaw bu baax di nuyu juge nag di ko wax ne ko ñun moom moom rek la ñuy topp. waaw ah, waaw. ñun ñoo ngi nii Amérique. Mm-hmm. mais depuis juge commencé di def live bi ba léegi. Mm-hmm. arrêté wuñ di ko déglu.